nga transformer ma tënge ci ni nga ko waxee ma jox la partie yoo xam ni yaa wax da nga ni par exemple ci canalisation man nag ma assaniral tëngeej ba ndox mu salté ak ndox mu taw kenn dootu ko jooyati biir tëngeej nga nga téye un milliard trois cent it boobu comme moom nga nar a fay ba deux mille vingt sept nga transformé ma tëngeej doo ko transformé fépp de ñetti domaine nga cité rek la la bëgg nga transformé ma tali bu fi mënti nekk bu fu amul tali nga def fa tali Futari tali bi màgget yàqu nga defar ko nga defaral ma yusuf Mbargal hôpital bu digne de ce nom comme ni waa way amé dalal jam duguluma ci sax affaireu stade bi duguluma sax protéger la ville contre euh, par une digue duguluma ci sax ay euh, defaraat mosquée duguluma ci sax defarat marché yi xam nga kon buma nekhon sax ne transformer ville ëpp na lool mais man ñetti doynam daf ni buma ñet at kuma jox at avec 1 milliard 300 ma transformé la ma transformé la ville demoon na ba ci bir waxam sax mu ne def ville dëkk bu melni ni non mais man transformation c'est rek la jël ñetti domaine yëpp doy lolu bu ko defé ma ngi rassurer personnel bi bu 1 milliard 300 boobu démé du tax ma bañ fay salaire inshallah rabbi